jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu euh, mbokk yi samedi bu jot bu waxtu yu jotee ñu dellu am mbégte dellu si si seen émission pencum réew mi euh, samedi bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sant ak Abdou Khadre ma Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey dañoo dellu am mbégte daal di invité. Seydina na Laye Samb mu nekk euh, membre ci coalition taxawu Sénégal ba pare jiite ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ci euh, euh, taxawu Sénégal ci fi nga xamante ni moom mooy ci Ndakaaru moom la ñu invité tey Seydina Issa Laye Samb ñoo ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay bu baax sëñ Abdou Khadre di nuyu mboolem auditeur réew mi FM ak mboolem sénégalais yi nga xam ne ñoo ànd bokk réew mi. Euh, ñu dellu am mbégte si wuy si gi nga xamante ni wuy si nga ko suñu invitation bi mu nekk ñaareelu yoon boo xam ne ñoo ngi lay invité ci pencum réew mi euh, fi ñuy njëkkee nag mooy euh, émission tay bi dafa dafa tombé ak njiitu réew mi di président Macky Sall bi ñu ko falee ci boppu bopp réewum Sénégal def na li nga xam ne mooy 9 ans ci boppu réew mi 9 président Macky Sall ñoom jàpp nañ ne def nañu si ay réalisation yoo xam ne yu mucc ayib la. Euh, yow en tant que acteur politique observateur euh, nan nga gisee neuf ans yu président Macky Sall yi. waaw maa ngi leen di nuyuwaat di am euh, mbegte bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalalaat tey ci émission bi di am saytu ci juróom-ñeenti at yu fi président Macky Sall def daanaka tey boo xoolee réew yi àdduna bi li leen gën a yitteel mooy démocratie démocratie ci lan ci wàllu élection yu ñu def ci ak njub ak leer ci wàllu liberté individuelle ak collective bi maanaam sañ-sañu nit ñi ñu wax seen xalaat am sañ-sañu am fu ñu bokk am sañ-sañu am nu ñu dajaloo pour ñaxtu am sañ-sañu bokk ci lu leen neex pour mën a jëmale seen bopp ak réew mi kanam beneen biit ci wàllu démocratie mooy li nga xamante ne mooy ndëgërlaayu euh, nguur yi fi nekk ak seen indépendance maanaam moom seen bopp lii di pouvoir exécutif loolu kenn laam-laameewu ko mu ngi doxal li ko war pouvoir judiciaire maanaam wàllu yoon ñuy lam-laamee ndax yoon moom na boppam ci réew mi wala déet ak it wàllu pouvoir bi nga xamante ne moom la ñuy mooy baatu askan wi muy pencum ndaw réew mi di assemblée. tey nag boo jëlee Sénégal analyser ko ci wàllu démocratie tey nga saytu ko ci da ngay xam ne ci fànn bu nekk sooxe na te tey président Macky Sall bu muy ñëw ci boppu réew mi mitit la fi ñëwee ndax am na lu ci ëpp fukki nit ak juróom benn yu ñàkkoon seen bakken mhm. ci jamono yooyu ñu toll su ma juumul eh, ci gënoon a siiw la muy ak policier bi ñu faatoon aussi Fodé Ndiaye su ma jumul donc loolu tey boo euh, bu nit ñi xeexee ba yegg si ci jamono ñuy gisaat ferñeent yi taxoon loolu amoon a ah, xel war na tey parce que ñëpp gis nañu jamono yi ñu weesu nërmeel bi ñu bëggoon nërmeel euh, kii di Ousmane Sonko ak li mu jur ci réew mi muy fitna donc tey ci wàllu démocratie jàpp nañ ne Sénégal da ci dellu ginnaaw bu baax a baax te daanaka jàngat yi am ci àdduna bi ci Afrique ci wàllu démocratie Sénégal bokkatul ci fukki réew yi nga xamante ne démocratie sax na fi bu baax ci ak dëggu donc loolu tey dellu ginnaaw te la ci réewum si réewum Sénégal boo xoolee tey ci wàllu ndaw ñi ndawi Sénégal liggéeyuñu loolu du suñuy kàddu it mais dafa am ay maanaam ferñeent yu war a mën a tax ñu wax ko parce que tey bànqaas bi nga xamante ne ci àdduna bi mooy saytu wàllu liggéey nee na Sénégal ci fukki réew yi gën a ñàkkam xëy ci àdduna bi la bokk ñu weesu loolu ndawi Sénégal amatuñu lu ñu def amatuñu yaakaar jël ay gaal di dem di fekk ji Europe di dem Espagne pour mën a am liggéey mën a am lu ñu suturle seen bopp ak lu ñu terale seeni wéjur boo jógee ci loolu it fitna yi fi amoon fan yi ñu génn gis nañu ne ndaw yu bari ñoo ci nekkoon daanaka ndaw buy xëy di wàcc ak a dem di nga tal leneen sax lu dul dem di toj ay Auchan dem di toj ay supermarché ak ay yeneen mbir pour war a mën a am loo lekk ba pare nag di ko ndàmboo loolu yëpp tey ay signal yu wér yu wóor yu wane ne Macky Sall engagement bi mu jëloon ci créer ay liggéey ci réew mi daf ci soxe boo leen waxee ñoom ci wàll boobu dañ lay indil ne Sénégal am na taux de croissance maanaam tey li nga xamante ne mooy njureelu réew mi ci wàllu koom ci at mi yokk na fi ba yegg juróom poñ ak xaaj mais loolu dañuy leeral askan wi ne alal bi réew mi di leb bitim réew di ko dugal ci ay chantier lu ci mel ni tali lu ci mel ni projet yu mel ni train express régional ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu mooy suuxat vraiment suqaliku réew mi ci wàllu boobu mooy suqali wàllu kom bi waaye tey su euh, lu lu lu yomb vérifier la lu yomb saytu la ndax boo demee ci ci ci àdduna bi mbay mi d'abord moo war a nekk secteur bi war a njëkk a joxe liggéey ci réew mbay mi parce que tey Sénégal dinañ jële bitim réew lu tolloog ci ñetti téeméeri milliards ba ñeenti téeméeri milliards ci lu ñuy jënd ci wàllu lekk ak dund bitim réew di ko dugal ci réew mi donc tey jàpp naa ne bu président bëggoon créer ay liggéey dina gën a teg njub ci PRODAC bi programme des domaines agricoles communautaire xam nga réew moom doone lépp bon na mais tey boo jëlee rek wàllu PRODAC di nga gis ne projet bu baax la bu ñu waroon gën a mën a yor ci ak njub te loolu gis nañ ne sooxee na fa bu baax da nga gis ne ak njub amu ci ko yore. Euh, projet bi inspection générale des finance bu ministère de l'économie et des à l'époque Amadou Ba moo fa nekkoon defoon na gëstu ba jàpp ne am na ay doxalin yu waroog njub yu fa am daanaka Mbaye ñaa booba la ñu la ñu la la ñu tegoon baaraamu tuuma ba sax après ay coppite am na fa ba am ku bees ku fa tegoon ci projet boobu projet boobu bu doon jaar na yoon ci juróom-ñeenti at jàppoon nañ ne war na mën a régler jafe-jafe yu bari ci réew mi. mais euh, Seydina lan nga mën a wax ci 9 yi ci lu jëm ci wàllum euh, corruption lan la ci euh, njiitu réew mi di Macky Sall def ne jéego lan nga mën a wax tamit ci mbirum transparence ndax gis nañ ne indi na fi indi na fi OFNAC am na fi tey ay corps de contrôle yoo xamante ni ma ngi ci Sénégal ci mbirum transparence mbirum leeraange ak mbirum corruption tey ba ci wàllum éducation ak santé lan nga jàpp ne Macky def na ko si. waaw ci wàllu corruption bi corruption jugul ci réew mi bari na fi tey boo duggee ci réseau sociaux yi maanaam li nga xamante ne fa la ñuy partager yenn xibaar yi ci réew mi mhm. da ngay gis ay nit di wax jafe-jafe yu ñuy am ci yenn wàllu service public yi mhm. gis nañ fi sax ci wàllu transport secteur transport terrestre mhm. euh, mbindeef boo xam ne dañ ko tuumaloon ba ñu jàpp ne tuuma bi lu leer la mais ñu sanctionné ko quelques après ñu gis président de la république tegaat ko ci li nga xamante ne mooy ay responsabilité Mm-hmm. alors ko loolu lu ñu war a bañ la. Mm-hmm. tey nag teg neen ko fi teg fi CREI yi mais CREI yi gis nañ ne benn client rek la ma sa am muy Karim Wade. Mm-hmm. te ñun ñi doon nekk ci réew mi di saytu gis nañ ay nit yoo xam ne bi Macky saal di jël réew mi ñoom amañu woon doole ci wàllu comme ci benn bi xamal nu ñu leen àll nga ñëw tey juróom-ñeenti at ñooñu tey di wër di maye million muy loo xamante ne tey lu jar a gëstu la lu jar saytu la. ci ay nitam ay ñoñam yi ànd ak moom. mais def na fi kuréel boo xam ne ñoom danañ def déclaration de patrimoine xanaa. xam nga déclaration de patrimoine moom wax dëgg yàlla euh, baax na. certes ñu mën a xam ci wàllu of nag li nga xamante ne moom la nit ki am buy dugg ak lu mu xam lu muy génn mais loolu lan la ci askan wi mën a am comme organ de contrôle lan la ci askan wi mën a saytu pour xam ndax ñi li ñuy wootee dëgg la wala parce que président Macky day teg ay bànqaas rek peinture ko ba mu rafet dugal ci ay nitam te ay nitam yooyu fu mu leen awle fa la ñuy aw parce que day delluwaat rek ci indépendance bi ñu waxoon ci wàllu yoon digim yoon moo amul indépendance ñu ñu réew te loolu magistrat yi ñoo ko wax li koy firndeel mooy juge dem bi nga xamante ne tey newoon na ne dafa génne boppam ci euh, bànqaasu yoon yoo xamante ne taxawatuñu seen wareef nga jëlaat justice voilà nga jëlaat encore président UMS di Souleymane Teliko juge Teliko wax na ci kanamu ñëpp nekk ku gis procès Khalifa Ababacar Sall du mu dee woon xam ne procès politique la woon maanaam yoon dafa dafa dafa dafa dafa dafa génn foofu ci wàllu euh, dossier boobu donc tey signaux yu bari maanaam euh, am na ay ay ay ferñeent yuy leeral ne Sénégal du réewu du réewu njub corruption baa ngi fi samp tànkam te président Macky Sall firndeel ko ci ñaari fànn moo ne ay nitam am na dossier yoo xamante ne mu ci teg concam hmm. yoo xamante ne ay nitam dañ si def ay ak ak jubadi mu teg ci concam pour loolu bañ a jëm kaw benn ñaar moo toog tele ci jeexitalu at bi ñu weesu mu ne am na ñoo xamante ne kat buñ leen jàpp ndax buñ leen jàppee réew mi tàkk mais ana justice kon donc foofu ci wàll boobu moom mi nga xamante ne moo réew mi ay ñoñam bu ñu tegoo si yoonu njubadi moo war a njëkk a taxaw teg leen ci yoon mais gis nañ ne tey Euh, ku ma am ndey ku ma amul ndey moo am ci réewum Sénégal. d'accord yaa ngi euh, dinañ ñëw ci euh, neuf ans yi ci éducation ci lu gàtt. ak wàllum santé mais li nga wax sànq ci wàllum justice ndax ñu bari tey di ay xeltukat dañoo jàpp ne réew su amul justice rek. réew moom moomu amaana ci musiba bala jëm ku si mel ni Alioune Tine wax na lu mel noonu te dañoo gis tamit procureur Alioune Ndao ancien procureur bu bu bu CREI wax ne fii ci Sénégal dañoo gis ne pouvoir exécutif bi mën nañoo jàppee pouvoir exécutif bi Macky Sall euh, dafa dafa nërmeel wala dafa teg loxoom ci li nga xam ne moom mooy euh, pouvoir judiciaire bi nee na tamit euh, pouvoir exécutif bi amul benn respect wala benn wàccuwaay boo xam ne jox na ko pouvoir judiciaire bi loolu yow lan moo ci sa xalaat. loolu lu am la. day firndeel rek kàddu yi ñu waxoon sànq ne justice moomu réewam parce que tey dem neen ba ñi nga xamante ne ñooy ñiy dox ci wàllu yoon ñooy génn di yuuxu loolu. acteurs yi acteurs yi da ngay gis président Abdoulaye Wade. parce que tey justice yaa a des magistrats yoo xamante ne euh, mën nañu moom seen bopp am seen indépendance bopp mais si seen choix la parce que tey boo demee parquet parquet moom c'est le ministère public loolu daanaka dafa dafa dafa dafa dafa lëngoo ak nguur gi mm-hmm. loolu mënul ñàkk mais ci biir loolu yaa de des magistrats du siège magistrats yoo xamante ne tey moom nañu seen bopp président Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee defoon na ay jéego pour gën a rafetal gën a ñoŋal ñoom seen nekkin ak seen man am sañ-sañu wax yoon mais le président Abdoulaye Wade waxoon rek da leen di wax ne dem leen ñoom ñu ñëwaat naan la ñun lan la ñu war a def donc tey it loolu interpellation la ci bépp magistrat pour mu war a gën a mën a góorgóorlu wax yoon mhm. parce que réew bu yoon amul da ngay ne investisseurs yi ñëw maanaam ñi yor koom ci bitim réew mhm. réew mi war ko mën a soxla pour gën a suqali secteur industriel bi ak yeneen secteur ak secteur service yi ñoo ñu tey seen xel day xaw a tey ci ñëw parce que dañ leen ah man kat ndigim réew mi tegul si yoon man bu ma fa amee jafe-jafe est-ce dineen àtte sama mbir ci yoon donc loolu tey ay ay ay ay kii la ay ay lënc lënc la yu ñu nemmeeku te président Macky nit ñi du ñun amoon nañu yaakaar ci moom wax dëgg yàlla mais wax dëgg yàlla Sénégal dañu dañuy dañuy folli mais mënuñu fal. d'accord mais mais Seydina Issa Laye euh, lu jëm ci wàllum tey euh, éducation gis nañ ne euh, président Macky Sall am na mébét ci ay université yu mu wax ci wàllum santé tamit am na ay hôpitaux yoo xam ne ñoo ngi koy def ci yenn régions yi loolu xanaa mënoon a ñàkk mënoo ñàkk wax ne def na si ay jéego. xam nga tey damay rafetlu lu ñuy wax couverture maladie universelle président Macky Sall moo ko fi indi waaye. li ko sooxeel tuuti rek mooy bor yi état bi di amel hôpitaux yi mooy li muy war a jël mais tey boo jëlee seemi ci wàllu sante lu ñuy rafetlu la xam nga li may bañ ñu ne ay opposant lañ ànduñu ci li président def ñu ne lépp bon déedéet mais sànq lim naa fi projet bu baax la bu ci góorgóorloo mu tegu si njub bañ am kumba am ndey kumba amul ndey war na mën a baax boo jëlee tey wàllu seemi tax na ñun acteurs sociaux yi nekk à la base acteurs politiques yi suñu loxo xaw na wàññeeku ci askan wi tuuti ci wàllu sante parce que da nga daan taxawu di taxawu askan wi ci yenn jafe-jafe yu ñu am pour faju mhm. mais tey CMU bi tey da leen di orienté jàppale leen sax organiser leen ba ñu dem di cotiser. Mhm. donc loolu tey wax dëgg yàlla lu ñuy rafetlu la mais nañ ko gën a teg ci état bi di jàppale vraiment structures yi mutuelles yi pour ñu war a mën a am doole. Mhm. boo jëlee wàllu njàngale mi tey da ngay xool euh, lan la réew mi soxla mais université yi dafa mel ni dañ fay dugal nit ñi rek. pour ñu am lu ñu def en attendant maanaam problème la bu global bu ñuy jël euh, taxawal ko te di si ut ay solution provisoire maanaam ay solution am te ne euh, du yàgg parce que tey boo jëlee ñëpp yóbbu leen université jël ñëpp yóbbu leen ñu parce que Sénégal tey boo xoolee ndaw ñoom ñëpp ñu am quasiment même type de formation bi gestion ak lettre ak yooyu la ñuy ëpp lu ñuy def mais tey boo jëmee tey ci wàllu mbay mi Sénégal mënoon na am diggante ISRA institut sénégalais de recherche agricole ak banqaasu jàngukaay yu kawee yi benn dox bu am seen biir ah. ba ñu mën a suqali li nga xamante ne mooy mbay mi Sénégal boo génnee ci àll bi da ngay daw ay kilomètres i kilomètres nga jubal Ndar jubal Tambacounda jubal Ziguinchor ay suuf la yu fi ne yu kenn bàyyul am na lu ñuy wax ci Sénégal oriental maanaam booru Tambacounda les terres neuves du Sénégal suuf la su baax soo xamante ne tey waroon na mën a permettre ci wàllu maraîchage ci wàllu fruit ci wàllu fleur sax parce que fleur am na réew yu koy exporté di ci jëlee alal ju bari réew mi waroon na ci mën a teg ay jéego yu wóor war a mën a nag euh, maanaam génne foofu ay pexe pour li nga xamante ne mooy chomage bi ñu war ko mën a dékku ci réew mi boo jëlee it université yi tey ban ban ban ban lien ban link comme ni nga waxee sànq la université yi am ak entreprise tey gisuñu ko tey da gis ñoo xam ne dañuy jàng ba ut liggéey bu méngoog seen compétence lu jafe la donc tey wàllu suuf système éducatif la ñu war a xoolaat ci réew mi cambaraat ko xam réew mi ci wàllu économie fan lañ ko bëgg a jëmale ñu méngale ko ak li nga xamante ne mooy wàllu njàngale bi pour nga xamante ne li économie bi di soxla ci wàllu euh, compétence njàngale mi dina ko mën a indi te du am problème mais tey liñ gis saytu ko mooy dañuy tabax ay banqaas yu jàngukaay daaru jàngukaay yu kawe pour dugal fa élèves am bac pour mën leen a gérer maanaam pour mën leen a tënk en attendant état bi jàll ci leneen te loolu du du luy régler un problème structurel fi may daaneele mooy abri provisoire yi ba tey gis nañu ko ni am na ci réew mi te gis nañ ne tey état bi am na fu muy dugal koom foo xam ne am na fu ko gën a yelloo muy wàllu jàngale bi mhm. njàngale bi daal euh, ñëpp gis nañ ne sooxe na syndicalistes yi saa su nekk ñu ngi coow pour war a mën a nag améliorer seen i conditions parce que tey kuy fi may daanele mhm. moom la ñu war a gën a teg ci ci condition yu baax utal leen salaire yu baax seen xel dal ñu mën a am xam-xam bu leer mën ko dugal ci ndaw ñi waaw jërëjëf euh, Seydina Issa sàmb mbokk yi moom la ñu invité tey euh, ci euh, réew mi FM seen émission pencum réew mi moom nag moom mu nekk membre ci coalition taxaw senegal jiite ndaw ñi bokk ci taxaw Sénégal ci diwaanu Ndakaaru ginnaaw bi ñu waxee nag ci 9 yu président Macky sàll yi Euh, ñu daal di wax ba tey ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, actualité bi gën a jàmp jëm ci wàllum politique li nga xam ne tey moom mooy euh, élection locale yi président Macky Sall conseil des ministres bi ñu génn daal nay adopté benn projet de loi boo xam ne daal dafay dàq mandat maire yi ak conseil municipaux yi su ko defee ñu daal di waxtaan ba jàpp benn date jàpp date boobu sax boo muy tulee assemblée nationale daf koy yóbbu ndax euh, ñi nga xam ne ñooy commission euh, bi nga xam ne ñoo nekk euh, ci dialogue national bi di nekk wàllum politique bi commission politique boobu déggoo amul ci seen biir dàq googu ñuy dàq élection locale yi du ñu wax guleet yow lan moo ci sa xalaat loolu day dellu rek ci li ñu waxoon ca tàmbali ga ne démocratie sooxe na parce que démocratie ci li ko ci li koy gën a dëgëral élection ci la bokk maanaam jongante ñu tànn ñi war a jiite bànqaas yi nga xamante ne ñooy taxawee wàllu nguur mais tey bi ñu gisee li xew ci réew mi mooy bi président Macky Sall ñëwee ba léegi dafa nekk ci tànku doya dal li nga xamante ne mooy gox-goxaan te gox-goxaan tey boo xoolee lu réew mi war a fonk la boo xoolee tey collectivité territoriale yi liggéey approche bi ñuy am diggante ak askan wi loolu ñoom rek ñoo ko mën te président Macky Sall bi mu tegee programme am bi ñuy wax plan Sénégal émergent dafa waxoon ne lépp loo xamante ne mooy ay doxalin yu réew mi war a doxal pour mën a suqali askan wi suqali réew mi dañu koy jaarale ci gox goxaani li tubaab di wax teritorialisation des politiques publiques tey wàllu emploi bi ñu doon wax sànq sa wàllu xëy mi ñu ko jëloon tey toftal ci boole ci gox-goxaan yi jàpp naa ne dina am lu ñu réglé mais tey li mu defaat nii euh, daxaat élection yi certes ci ay waxtaan la la la la tàmbale woon ak dialogue national bi saytu ni nga xamante ne mooy fichier électoral bi. mais est-ce que parce que complicité euh, way politique ah, parce que ñun dafa am lu ñu laaj. muy lu ñu war. maanaam ci démocratie bu sa xel teeyee ci dara am nga sañ-sañu wax ko laaj ko wax nguur gi mu teg ci ay jéego pour leeral askan wi leeral way politique yi te loolu si liy indi jàmm la bokk muy benn wàllu fichier électoral bi parce que fichier bi tey jàpp nañ ne génn neen ci ay ndaw yu bari ci coomba rek nguur gi jàpp ne fichier électoral bi. ak njubadi lalu na ci ay lënt lënt lalu na ci loo xamante ne luy yokk doole président Macky Sall ak nguuram jàpp nañ ne processus électoral bi maanaam nañuy doxale wàllu élection ci réew mi am na ay sox sox yu ci am mais Seydina yéen yéen a wax ne euh, il faut que ñu audité waat bi mhm. yéen wax ne Macky Sall dafa euh, ñenn ñi sax dañu wax ne dafa sàcc élection euh, deux mille dix-neuf yi maanaam ay wuruj am na ci mhm. buy audité fichier bi kay kon dàq élection mënut a ñàkk xanaa waaw mais xam nga dàq bi dafa yàgg tey mën nañ ko def décembre 2021 élection yi mën na bañ a génn 2021 ci coobari nguur gi parce que nguur moom xam nga nguur moo yor lu ñuy wax la puissance publique maanaam dooley dooley doole dooley ñëpp la yor moo yor police yor gendarmerie yor administration yor renseignement yu koy permettre muy mën a xam li xew di mën a anticiper donc tey nguur gi bu bëggoon élection am décembre war na ko mën a def décembre xam nga xam nga ci liñ jàpp rek ci li benn njiit bu bokkoon ci Euh, benn bokk yaakaar waxoon ne président Macky Sall diggante 2019 ak 2024 bëggu ci def benn élection te loolu kilifa la boo ko fekkee président Macky wax ko moom mu génn siiwal ko biral ko ñëpp xam ko donc tey day wane ne saa su nekk rek ne président Macky Sall démocratie bu muy woote nekkul ci moom. bëgg na tënk nit ñi. Mhm. noot leen ci bëgg-bëggam pour war a mën a dérouler nag agenda politique am. mais Seydina ak euh, coronavirus bi fi jaar économiquement parlant tey est-ce que Sénégal am na xaalis boo xam ne war na see mën a organiser ay élections locales. mais corona am na Guinée Conakry Sénégal la ko ëpp comme fop te def na élection corona am na Côte d'Ivoire def nañ élection présidentielle ba tollanti sax def élection législative. Sénégal tey ñàkkul koom bu ko war a mën a may mu organiser ay élections parce que tey si budget bi bëri na ay rubrique yoo xamante ne tey euh, bu ci nguur gi wàññi woon boppam maanaam ci lu ñuy yàq ci wàllu ci wàllu yu bëri war nañ mën a am ay crédit yu doy pour organiser ay élections mais euh, euh, président Macky Sall dafa dafa parewul wala dafa jàpp ne su demoon élection tey dafay ñàkk élection locale yi ndax élection locale yi lu ci man di am tamit natt la goo xamante ni tey euh, natt gu am solo la. natt gu am solo la président Macky Sall ñëpp gis nañ ni muy doxale bu jekkuwul du bëre balaa muy daan mbër yi jàkkaarloo ak moom day fekk mu yeew leen nërmel leen daaneel leen balaa muy dem élection day fekk ne tànn na ñi war a voté. parce que tey naka ngay mën a leerale askan wi naka la nguuru président Macky Sall di leerale askan wi élection 2019 yi mu am ndaw yu bari ci ndakaaru ak li ko wër yu jotul seen carte électeur naka la ñuy wane ay ndaw yu ne man am naa fukki at ak juróom-ñett toll naa ci voté ci tànn ñu génne la ci fichier électoral bi donc tey moom mooy saytu ñi war a voté ak ñi warul voté te loolu lu ñu war a xeex la lu ñu war a dénoncé la ci réew mi parce que ci liy yàq liy salfaañe démocratie ci la bokk mais euh, dañoo gis ne yéen président Macky Sall bu daqee tamit euh, ngeen ngeen ne cell euh, amul benn acte boo xamante ni tey bu ngeen di teg boo xam ne di ngeen jéem weñ loxoom au moins dañuy dañ koy bàyyi rek moom muy déroulé di dem. xam nga président Macky Sall lenn la xam. muy fitna ak coow te réew mi mënoo saa su nekk di yee fitna di yee coow boo génnee sax di manifester mu génne gendarmerie génne police teg ba nit ñii duñu war a mën a def li ñu bëgg a def jamono yi ñu weesu. il a fallu askan wi jug taxaw parce que nag daanaka dafa dafa dafa ëppoon waaw ku jug rek nga ndërmel ko mais bi askan wi jugee ba ay bakken rot si daanaka toog na ay fan faalewul askan wi lijjantewul askan wi bu mu demee nag ba mbir mi nar a ëppi loxo nag ci lay soog a wax ci lay soog a àddu mais kooku est-ce que nit la xam nga euh, li li li li ñuy ñaan ci njiitu réew li ñu ñaan si njiit sax en général mooy njiit bu nite mais njiit bu ñu xamante ne nitewoo mais loolu neexoo jëflanteel parce que balaa ngay wax rek wala balaa ngay jëf faaw deret tuuru faaw nit ñi yuuxu coon am ngay soog a taxaw mais loolu mënuñ mënuñ ko dëkk ci cim réew. d'accord léegi baaxul ci réew baaxul ci comme koom-koomu réew. Ah, dana ñëw ci euh, manifestation yi Seydina Issa Laye Samb euh, li nga xam ne tey mooy élection locale yi. Mhm. Euh, ñoom tey sax ci boo xoolee journaux yi tey si samedi ji nee nañu li nga xam ne mooy projet de loi bi dañu ko yóbbu fi nga xam ne mooy assemblée nationale mhm. dañ ko def. Euh, procédure d'urgence mhm. maanaam ñoom li ñu proposé ñu majorité bi mooy 27 euh, février 2000 2022 euh, mais est-ce que tey 2022 bu ñu ko defee élection locale te si 2022 bi moom la war a am élection législative mhm. est-ce que jàppoo ne bu ñu defee locale 2022 ni ko nguur gi ñu ko majorité bi bëggee ñoom bu ko defee noonu 2022 est-ce que jàppoo na élection législative dina mën a nekk ci même même année boobu noonu xam nga 2022 dafa nar a nekk kon bu buñ dul liggéey parce que da ngay dugg ci année bi nekk ci élection local bu fekkee seen bébét antu na nga jugee élection local automatiquement en fonction résultat yi génn ngay waajaat élection législative donc ren 2022 euh, buy ko moytuwul nar nañ toog juróom-ñetti weer si boo ko xaymawee yoo xam ne réew mi ci élection lay nekk te ñëpp xam nañ ne réew bu nekkee ci élection rek ñi ñi liggéey duñ ko tal woy politique yi nga xamante ne ñoo yor bànqaas yi war a doxal réew mi kenn ku ci nekk di nga dellu fa nga dëkk nekk di dox ko wax pour war a mën a faluwaat war a mën a dëgëral sa taxawaay ci politique. donc loolu lu ñu war a mën a xoolaat la waaw mais day wane rek euh, li ñu doon wax sànq président Macky Sall njubadi gi mu instauré ci calendrier républicain bi ba tey kenn xamul élection kañ lay am kenn xamul fu ñu jëm kenn xamul naka la ñu war a taxawee donc loolu aussi day dolliwaat rek ci ne. démocratie sooxe na bu baax ci réewum Sénégal parce que doo xam élection kañ la ak na la élection yu waroon am 2019 ñu reporté ko ba 2022 loolu ci cooba rek président Macky Sall la. d'accord léegi euh, ba tey lu jëm ci wàllum euh, wàllum élection dañu gis ne euh, procureur Aliou Ndao nee na président Macky Sall amul sañ-sañ constitution bi mayu ko mu def ñetteelu mandat waaye dafa wax kàddu yoo xam ne ay at a ngi nii. Euh, ñu seen xel màcc jëm ci wàllum yoon di ko wax ay at a ngi nii ñenn ci sénégalais yi di ko wax ak ñi nga xamante ni ñooy way politique yi euh, yow euh, lan moo ci sa xalaat ndax li tax ñuy laaj laaj boobu gis nañ ne bi fi manifestation yi amee ma Macky Sall est-ce que ñenn ñi dañu jàpp ne man na see jàngatee loo xam ne benn signal la boo xam ne man na deltu ginnaaw su doon dafa bëgg am beneenu mandat. waa xam nga loolu gàcce la ci njiitum réew mi ñuy wax wàllu troisième mandat. gàcce la ci moom waaye eh, ñun amuñ ci mbetteel. parce que parce que kuy vote ñu ne la sa këyit bii nii amoo ko waroo vote nga vote par force ñuy wax nga ne xanaa xamoo may kan man man man nga sànni loxo ñu génnaat ci loolu nga am ndam nga ne sa mandat di nga ko wàññi jële ko juróom-ñaari at def ko juróomi at respecté woo ko mu bind ci téeréem ne moom bii mooy mandaam bi mujje waaye gis nañ ne ay ñoñam ci boppam tey nanguñu gindi askan wi ci ndax troisième mandat dafa mal troisième mandat amul ñun réew mi war nañ saytu ñi ñuy fal Abdou Khadre jom dafa am solo ci nit jom ak nit dafa am solo ci kilifa c'est extrêmement important parce que ay cër la ay ay ay taxawaay la yu ñu maam yi bàyyi loon maanaam pour war a mën a jiite réew mi président Macky Sall dafa wax bu am solo mu ne dafa am Euh, moom ci fu mu bokk muy ceddo guerrier ah tur bi laa fàtte euh, wàllu xeet bu mu ne woon fa la bokk mm-hmm. mais dafa ne ñoom du ñu dellu ginnaaw mm-hmm. mais yow boo joxee sa kàddu nga wax ko bind ko mais war nga mën a am ngoru sàmmonteg la nga wax ndax bu dee roy na ay maamam saytu na ay maamam nañ daan doxale waroon na moom ak doxalinam moo tax mu war a mën a seetaat nag boppam bu baax ci fànn yu bare bari bari bari waaw lu tax euh, yenn opposition bi yenn ñenn si yenn lu tax ngeen di wax ne Macky Sall fonkul kàddoom parce que wax naa ko sànq li mu fi jot a wax yépp respecté wu ko newoon na dina teg réew mi si njub amul newoon na dina wàññi mandat am jële ko juróom-ñaari at def ko juróomi at amul newoon na it ne euh, réew mi lay gën a cëral que partem maanaam la par la patrie avant le parti defu ko neewoon na du mas a nommé mbokkam ci poste de responsabilité Aliou Sall doonoon na fi euh, kilifa bi jiite caisse de dépôt et consignation neewa fi maire de waaye loolu dañ ko fal askan wee ci ànd demaat xëccoo ji euh, jiite mairu Sénégal AMS donc tey loolu sax ay fal la ñu ko fal mais mënoon na jombale boppam magam ne ci réew mi muy xemmam leneen ci réew mi parce que réew mi du réewu benn famille réewu askan wi la ñëpp ci war a gis seen bopp nga gis ki bokk ak jabaram mhm. di magam di di frère am nekkat encore ci nguur gi donc tey président Macky Sall la mu waxante woon ak nit ñëpp ci wàll wi ak respecte surtout conclusion assises nationale yi defu ci dara mais yow ku la ne dinaa la jox waxtu bu jàll joxu la gisoo ko déggoo ko mais mënoo jàpp ne kàddum lu dëgër la lu wér la. waaw mais euh, Seydina Issa Laye est-ce que tamit euh, lenn du du euh, lenn li du discrimination ndax tey Macky Sall su dee am na ay mbokk yoo xamante ni jàpp na ne am nañ xarañteef pour participer ci du réew mi xanaa war nañ leen mën a jël. ay mbokkam gënuñ fi muus duñu ay génie bañ nekkee université dégguñu woon jaloor yu ñu def si seen wàllum jàng. biñ ñekkee di liggéey dégguñ benn jaloore bu def seen wàllum xëy te am na sénégalais yu fi def ay jaloore ci wàllu jàng ay sénégalais yu fi def jaloore ci wàllum science ci wàllum économie ci wàllum uti industriel te dëkku joxuñ leen ay responsabilité maanaam tey réew mi liñ wax sànq rek kumba am ndey kumba amul ndey moo fi nekk donc tey moo waroon bañ sax ginnaaw li dal ab Ablaye Wade ci Karim Wade Macky Sall moo waroon bañ ay ñoñam di ko jege ci wàllu nguur mais tey day wane ne Sénégal buñ la joxeem réew doo xalaat lu dul sa bopp ak say mbokk te loolu lu fi war a dañ la ci réew mi ñu leeral ko. Euh, jërëjëf euh, Seydina Issa Laye Samb yow yaa jiite ndaw ñu bokk ci euh, taxawu Sénégal ci ndakaaru ñu daal di wax ci li nga xam ne ba tey moom mooy taxawu Sénégal ak élection locale yi instant bi sax yéen yéen a ngi wax ne président Macky Sall parewul mais est-ce que yéen taxawu Sénégal. ak jafe-jafe yi nga xamante ni dab na leen ci seen wàllu politique ndax nag ay la yéwén euh, bi ngeen fi taxawalee euh, taxawu ndakaaru bëri woon ngeen cëfar-cëfar lool waaye gis nañ ne seeni laaf daal bëri na yoo xamante ni suqi nañ ko si est-ce que réellement taxawu Sénégal pare na ngir dem ca élection locale buñ ne woon élection locale suba taxawu Sénégal pare na pour àddu ci pare na pour dem ci loolu moom ñun amuñu luñ siy tiit ndax daanaka certes nguur gi jël na doole gi mu am yépp ci wàllu sécurité ci wàllu yoon ci wàllu koom nërmeel ko suñu kaw dóor ko suñu kaw mais terewul ba tey ñu ngi taxaw parce que li ñu bëggoon mooy ñu fay toog te tey la wàllu gën a ay tey la taxaw Sénégal gën a dëgër tey la gën a samp te tey la si ndaw ñi di gën di tey ngay gis li koy firndeel rek mooy saa yoo xamante ne président Khalifa Sall jug na wala ay ñoñam seen kàddu ba tey mu ngi am doole ci askan wi mu ngi am doole ci débat politique national bi te tey boo gisee président Khalifa Sall semaine bii ñu génn mu ngi yoon wakaam mais ñëpp gis nañu ni ko mbaboor bi toppe woon ànd ak moom di ko wax ne yaakaar ju ci am ci réew mi pour suqali ko ci yow la nekk. mais est-ce que mbaboor googu ñooy wote. dañuy wote te it nattukaay la parce que li bonoon kay mooy xalifa Sall génn nit ñi faalew ñu ko. mais nag élection nag lu ñuy liggéey la. nan nan nan la président Macky Sall jëlee doole ak justice euh, door ko ci seen kaw. Euh, dafa jël doole ak yoon dóor ko suñu kaw. ci benn kàddu mën na ko firndeel mooy lii juge te li ko wax ne procès Khalifa Sall ñëpp xam nañ ne du procès équitable maanaam lu ñu bëggoon rek mooy nërmeel benn adversaire u président boo xamante ne amoon na mbébét pour yóotu boppu réew mi tey gis ngeen euh, wàllu ville de Dakar ni ñu président Macky Sall def maanaam indi fi ay sos mook ñi mu àndal wax ne Khalifa Sall dafa luubal nangu mandat bi Khalifa Sall amoon ci maire bi te askan wekk a jox nangu mandat bi Khalifa Ababacar Sall amoon ci assemblée nationale te askan bekk a jox parce que tey booy tuumaal nit nga ne justice yaa ngi koy joxe ci turu askan wi askan wi delluwaat feddaliwaat seen kóllëre ak seen kóolute ci kooku day wane ne yow da nga échec ci li nga def mais xam nga nguur moom pour jàkkaarloog moom lu jafe la ndax nguur moo mën a sonal sax yonent nguur moo mën a sonal wàliw moo mën a sonal sëriñ ñëpp Euh, nasaraan si bi ñu fi nekkee niñ jëflante woon sëriñ si fi nekkoon gis nañ euh, parce que day jaadu ët euh, xissa yi fi suñu borom amal ñu koy fàttali nit ñi mhm. ne yonte yàlla Moussa ah bi ko borom bi di yabal sax ci firaw na am na num ko waxee ne na fa taxawe ak moom parce que xam na ne yor na nguur yor na doole te moo ko mën a ndërmeel donc tey nguur moom ku mu jublu sa kaw rek da koy yëg bu ñëwee ñun taxawu Sénégal yi yëguñu ko dañuy wax lu ñu neex mais nag terewul li ci ëpp solo mooy suñu capacité de maanaam suñu taxawaay ci jafe-jafe war a mën a continuer la nga xamante ne moo doon suñu mission. te ñu ngi koy def. waaw mais euh, xam nga Seydina Issa Laye euh, Samb euh, taxawu taxawu Sénégal maanaam taxawu Dakar gi mujj nekk. taxawu Sénégal. Mhm. ba la ñuy ñëw sax si taxawu Sénégal gi dañuy ñëw tuuti ci taxawu Ndakaaru. Mhm. Euh, ndax yéen euh, gis nañ ne da ngeen a dem élection euh, locale ci taxawu Dakar àdduna bi yëpp gis seen taxawaay ci wàllum politique ak ci élection au conseil des collectivités territoriales yi aussi mais yéen dañu gis ne Dakar bëri na ay maire yu àndoon ak yéen te bàyyi nañ leen mën nañ ko waxee noonu loolu te maire yooyu tamit aussi maire yu bari lañ Mm-hmm. boo xoolee tey ay euh, Alioune ay Bamba Fall ay Banda Diop ak ku si mel ay Ousmane Ndoye euh, ndeysaan dem si yàlla sa Diallo euh, moom yéen la àndaloon ñooñu ñëpp bàyyi xalifa Sall mm-hmm. est-ce que du loolu moo gën a néewal doole xalifa Sall ka ka président Macky Sall mi ngay wax ne moo ko bu ndoxataal waaw xam nga maire yooyu am na ñu ci ñëwoon ànd ak Khalifa parce que 2014 contexte bi taxawoon ñëpp jox xoon bopp xalifa Sall donc ñoom seen intérêt lañ doon jouer ñu bokkaat ci li nga xamante ne mooy élection yooyu ci taxawu dakaar mais it euh, dañuy fàttali ne ginnaaw maire yooyu ci biir conseil municipal yi ñun suñu nit lañ fa taboon dugal leen fa te it ci gox goxaan yi tey jàppal ne taxawu Sénégal boo ko saytoo gëstu ko parce que tey journaliste waree famit mooy di gëstu daanaka ci gox goxaan yi ndaw ña fay jukk di fa jébbi tey Khalifa Sall chance am mooy bëri na ay ndaw yu fay yu jébbi ci seen politique bi ahit ay jigéen yoo xamante ne tey ñu ngi ànd ak moom te Abdou Khadre boo jëlee tey Sénégal ndaw ñi ñu ngi jël conscience ne maanaam ñu ngi jàpp seen xel ne am na mission yu ñu war a jouer parce que téeméeri sénégalais yoo jël juróom benn fukki ak juróom ay ndaw lañ donc tey lay ëpp di mbàbbeeku di jóge ci askan wi di ñëw seet si Khalifa Sall ay ndaw lañ ak ay jigéen te dëgg yàlla sax ñëpp xam nañ ne ci jamono jigéen ñi ak ndaw ñi fu ñu jëm yaakaar war nañ fa mën a am. d'accord te ndaw euh, maire yooyu ñu fa nga fa jugee yi fa jugee tey boo jëlee Fass tey parce que yaa ko tudd Ousmane ma sañ ko tudd ndax suma mbokk la tey est-ce que tekki na fa la war mu tekki fa ba mën a impacter ci taxawu Sénégal maanaam ab demam tey amal ñu tey euh, lum ñi lum lum lum ñuy ñàkkaloo déedéet. déedéet parce que tey moom ay nit ñoo àndoon porté ko. taxawu ko dooleel ko ba dénk ko amoon yaakaar ci moom moom it mu amoon yaakaar ci Khalifa Sall mais ba mu demee tey ña ko porté woon ña àndoon ak moom fañ ne woon fa ba tey boo jëlee tey suma mag suma xarit Banda Diop Padois la nekk ay nit ñoo àndoon moom mais tey ña jiite ay ndawam ak ña jàppale woon dooleel ko ba tey ñu ngi ci Khalifa Sall donc xam nga du nit ñi lañ faloon mais ay équipe la woon ay nit di si gis yeneeni nit ay nit di si gis xalifa Sall ci ginnaaw taxawaay boobu moo taxoon nag ñu fal mais Seydina tey est-ce que tey par exemple tey mhm. euh, yéen taxaw Sénégal wala taxaw dakaar euh, bu élection local ñëwoon tey ndax am ngeen ay représentants yoo xamante ni tey ndax di ngeen am benn représentant taxawu dakaar maanaam ku bokk ci taxawu dakaar ku taxaw ku nekk Medina ak koo xamante ni tey dafay nekk Colobane Fass Gueule tàppe mhm. ak ku nekk Patte d'Oie ak koo xamante ni tey ku nekk Parcelles ak ku nekk Plateau est-ce que euh, configuration boobu noonu est-ce que yéen a ngi koy def ak ndax tamit am ngeen ñu leen fa taxawal. Medina moom Bamba Fall moo fa nekk parce que nee na ci li li ma dégg ne ba tey mu ngi ànd ak président Khalifa Ababacar Sall ci waxam mais élection yi bu ñëwee daanaka lu bari dina gën a leer mais tey gox boo jël boo fa demee di nga fa fekk ay nit yoo xamante ne tey am nañ kattan ak sañ-sañu laaj baatu askan wi ci tuuru taxawu Sénégal boo jëlee fukki commune ak juróom-ñeent yi nga xamante ne ñoo seq Ndakaaru foo ci dem rek. tey mën naa la tuddal tur wax na la diw war na mën a taxaw ànd ci ñi nga xamante ne euh, ñoo nekk ak xalifa Sall pour yootu fa baatu askan wi. te it bul fàtte ne élection yi ñu jëm mbëbët bi mooy wax dëgg yàlla demee ci en coalition parce que local moom waa comme nawetaan la rek. dañuy dañuy dañuy jogante dañuy fexe nag am équipe yu baax. am vraiment coalition yu baax ñu war a mën a ànd dem laaj baatu askan yi d'accord mais est-ce que tey li nga xamante ni tey moom mooy euh, euh, Khalifa Ababacar Sall mhm. Euh, moom tey euh, pare na euh, pour def coalition tey ak ku ci mel ni Ousmane sonk bu élection locale ñëwoon tey. waaw xam nga loolu moom lu jar a sóor la lu jar a bàyyi xel la xalifa sàll ubbeeku na ci bépp banqaasu politique bu nekk ci réew mi bokk ak moom pas-pas parce que politique moom même boo nekkee ci wàllu kujje war nga mën mais dafa am ñooy bokkal pas-pas même bu dee da nga nekk ci opposition waaw dafa am ñooy bokkal pas-pas donc loolu lu war a mën a nekk la parce que tey boo fàttalikoo buñ delluwaatee ay at ci ginnaaw maanaam 2009 opposition bi bokkoon pas-pas ñoo defoon Benno Siggil Sénégal ba moo mënoon tax à l'époque vraiment ñu gagné ay euh, ay dëkkuwaay yu mag waaw lu ci mel ni Dakar lu ci mel ni Ndar ak yeneen i dëkk donc tey loolu formule boobu la ñuy demaat rek parce que loo defoon mu jik la da koy tollanti mën ci génnaat te 2014 it daanaka ci anam yooyu lañ demee woon tam ci élection def ay coalition ànd a ceeg opposition bi liggéey ko ba daanaka mu nekk une réalité politique. d'accord mais euh, Seydina Issa Laye Samb xam nga tey politique aussi euh, dafa am benn euh, jafe-jafe boo xamante ni soo ko dundee ci politique pour nga yëkkati ko wax dina dina jafe lool. Mm-hmm. est-ce que yéen am ngeen stratégie boo xam ne bala muy yàgg di ngeen mën a di ngeen mën a di ngeen mën a jugaat. xalifa Sall ñëpp xam proximité maanaam li dox ci digganteem ak askan wi lu gàtt la maanaam sorewul askan bi te balaa yàgg incha allah di nga gis xalifa Sall ci sa koñ di nga gis xalifa Sall ci mbedd yi ci marché yi ci gare routière yi ci kër kilifa yi diine ak aada waxtaan ak ñoom pour gën a dëgëral taxawu Sénégal bi nga xamante ne mooy partem te bu ma lay li ma lay leeralaat sax ay nit ñoo lay wootee ci gox goxaan yi di wax seen cofeel ci moom ak seen mbébét pour ànd ak moom ci li nga xamante ne mooy projet politique am. donc tey Khalifa Sall homme d'état la am nañu yaakaar ci moom ci réew mi te bés bu jugaatee duggaat ci langue gi parce que dañuy fàttali rek ne doon na def ay tournée demoon na fi parcelle demoon na fi géejawaay mais bi mbas bi amee ci la téyewaat tànkam parce que boobu nguur gi aaye woon na bépp dajaloo buy am pour bañ a lawal feebar bi ci réew mi. mais euh, Khalifa Sall fan yi ñu génn dañ doon dégg lu jëm ci wàllum euh, supprimer ville yi. ay ville bu Ndakaaru ak euh, Rufisque xeet yu demee noonu Pikine euh, yow lan moo ci saxalaat ci loolu projet boobu bu dee lu am la. projet boobu bi ñu ko waxee. addu woon nañ ci parce que ville de Dakar tey boo ko jëlee ndax ci laa bokk jël géej Guédiawaye bu Rufisque sax daanaka ay dëkk cosaan la woon maanaam dafa am ay dëkk yoo ne dañu amoon histoire. ñu jiitu woon sax République du Sénégal ci mel ni ville de Dakar donc président Macky Sall ni ñu ko waxee sànq rek bu demee ba saytu ne mënul am ndam fii dina indi ak caay-caay bu mu teg pour war a mën a lëbëj carte gi jaxase carte gi parce que boo nee tey dangay ngay territorialiser les politiques publiques maanaam li réew mi di doxalee ci ay stratégie pour mën a jëm kanam da koy da koy wéer sës ko ci gox ko xaani tey nga xëy suba gis lu mel ni ville de Dakar ak taxawaay bu mu am ci réew mi nga bëgg ko dindi mais loolu day indi ay jafe-jafe Abdou dañuy leeral rek ville de Dakar ay nit ñu maandu ñoo fa nekk ay kilifa yu bëgg seen réew yu liggéeyal askan wi te ngoyuñu ci banqaasu mairie Dakar di ko politique boo gisee ville tey jël na lu toll ci milliard ak genn wàll def ko ci bourse yi pour jàppale xale ñu jàngi ville dina jël tey ci wàllu lu toll ñatt téeméeri million ak lu ko teg dugal ko ci ndaw ñi ak jigéen ñi pour jàngal leen lu ñuy liggéeyee maanaam li ñuy owee des activités génératrice de revenu maanaam luy indil nit ki koom pour mën a moomal boppam mën a jël boppam en charge nga jël ville tey nga xool centre de santé yi fi nekk lu ci mel ni Abass Ndao ville ñaata milliards la fa def pour ut ay scanner pour ut ay appareils yoo xamante ne ci wàllu bët da ciy faj tey dañuy gis tey Abass Ndao nit ñi dañuy jóge fu nekk ci Afrique de l'Ouest di ñëw di fajoo foofu mm-hmm. mais loolu tey naka la ville boobu di amale njariñ askan wi di def pavage di def ay tali di yeesal dëkkuwaay yi di yeesal dëkkin wi yow nga bëgg ko dindi ñun kay dañ ban raison moo tax président Macky Sall war a def loolu. Euh, Seydina Issa Laye Samb yow yaa jiite ndaw ñu bokk ci taxawu Sénégal euh, ci Dakar mais yéen yéen jeunesse su euh, taxawu Sénégal. Mhm. est-ce que li war ci jeunesse taxaw def animation parti bi. Mhm. ay débat conférence presse mhm. yu mel noonu. ban taxawaay ngeen ci amee. xam nga ci wàllu ndakaaru dafa am lu ñuy wax jamono ji ci politique lañ ko saytoo activisme ak politique. activism mooy lu ci mel ni suñu ñoom mag gi Marie Sagna ak ñi mu àndal li ñuy doxale am nag wàllu politique politique man ci ni ma ko jàppee ni ma ko jàngee rek ma ko nàmpee mooy da ngay dem ci askan bi di leen jàppale di leen ngi pour ñu tegu ci aw yoonu suqaliku daanaka tey taxawu dakaar taxaw Sénégal ci wàllu dakaar boo xoolee jàppale nu ndaw ñu bari ñu mënal seen bopp ci wàllu jàng maanaam utal leen bourse jàppal na leen naw ñu bari ci wàllu ay permis de conduire jàppale leen ay jigéen ak xale yu ndaw yi ñu mën a am luñ jàng lu ci mel ni restauration lu ci mel ni nu ñuy euh, nu ñuy nu ñuy liggéey ci yenn banqaas yi nu ñuy nu ñuy nekk secrétaire ñu ngi nekk ay ñawkat ak loolu parce que politique li ma jàpp man da ngay dox ci dundub doomu aadama bi mu mën ko jural njariñ mën a jël boppam en charge mais wàllu animation politique ñu ngi ci bu baax te am nañ ci ay résultat yu leer fi may fi may daanele mooy wàllu animation politique ñëpp xam nañ ne kenn daxu ko def waa taxawu Sénégal mais nag comme ni ma ko waxee rek weer yu ñu génn at at bi ñu génn toog neen at boo xam ne mbas mee fi nekk waruñ mënoon def animation politique mais li ci wàllu lu ci mel ni ci wàllu proximité ak fekk ji askan wi ci seeni i jafe-jafe loolu daanaka sax ñu koy def. d'accord léegi euh, bala ñuy euh, jóge foofu dugg ci euh, beneen beneen actualité yow da ngay nekk da ngay militer foo xamante ni man ci Dakar jàpp naa ne yow yaay militer fi gën a tar. Mhm. fi gën indi jafe-jafe. Mhm. ci yow. ndax euh, da ngay militer fi nga xam ne mooy yoof nga fekk fa ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Diouf saar nekk ministre bi ñu dénk wàllum wér gu yaram gi. Mhm. Euh, est-ce que foofu yomb na si yow est-ce que doole ni mu la koy doole euh, jéggiwul dayoo Seydina. ëpp ñu doole ëpp doole bu jéggi dayoo déedéet loolu ñun duñu ko nangu ndax tey boo demee yoof ay opposants lañ. mais en toute modestie mosuñ ko génne suñu gémmiñ mais liñ fa def ci wàllu politique nit musu fa taxaw def ko ci politique tu jëmale ko ci askan wi. ban fànn te yorul nguur yorul dara. ci fànn gunge ndaw ñi comme ni ma ko waxee sànq ñu am bourse bu njàngale seen bopp te jugewul ci benn banqaas publique maanaam jugewul ci benn institution publique jàppale ndaw yi nga xamante ne tollu leen seen digg àdduna amuñu doole ñu jàppale leen ñu am sax permis mën a dem jàngi jàppale ay ndaw ci wàllu sécurité. ñu dem jàng ji ko di ko doxal jàppale ay jigéen ñu doon am jafe-jafe pour mënal seen bopp ñu mënal seen bopp tey it wàllu euh, am na wàll boo xamante ne dugg nañ ci mënuguma ci sori parce que ñu ngi ciy dox mais tey ñun suñu taxawaay ci politique am na impact ci yoof bu baax a baax a baax mais est-ce que tey élection bu ñëwoon tey jàpp nga ne yow euh, di ngeen coaliser ak yeneen bu ngeen coaliser woon tey euh, élection locale incha allah ak ay Pastef ak euh, opposition bi jàpp mhm. ngeen ne mën ngeen a gagné Diouf Sarr. boo saytoo résultat élection yi fi jot a am 2012 ba tey boo dajalee li opposition bi am maanaam local 2014 yi boo ko tàmbalee foofu di ko saytu ba ñu ñu taxawee ni li fa ëpp ci élection yi fa jaar yépp boo dajalee baatu opposition yi moo ëpp baatu ko fa nekk di Abdoulaye Diouf Sarr waaw donc tey. ñun amuñu benn tiitaange ci élection yu jëm au contraire xel mu dal ak yaakaar bu wóor yaakaar suñu borom lañ ci am pour mën ci mën a am dam comme ni ma la ko waxee rek ndawi Yoff tey ñu ngi yeewu ndax euh, liñ doon xaar seen maire ci wàllu yu bari defu ko. d'accord liñ doon xaar seen maire ci wàllu taxawaay ci wàllu jegeñe diggante moom mi yor pouvoir local bi ak askan wi loolu yëpp gis nañ ne soxe na askan wi dañ ko dénk seen maire moom mu jël seen maire yi dénk ko ay nitam te loolu bañ ko koy dënk yaakaar ñu kon te dafa dañ am déception ci moom maanaam ak naqar ak yaakaar gu tas. parce que ak fi mu jaar ci wàllu xam-xam ci wàllu jàng fi mu jaar ci wàllu liggéey yi mu koy ndamoo di ko sago amoon nañ yaakaar ne dina yëkkati yoof ci fànn yépp jële ko benn yóbbu ko fukk mais tey wax dëgg yàlla ah boo demee yoof gëstu ko ndaw yu bari seen yaakaar tas na ci moom d'accord léegi euh, Seydina euh, yéen taxawu Sénégal Dakar euh, am ngeen fi ndëgër laay mais est-ce que ci biir Sénégal nag loolu mooy problème bi nag ci biir Sénégal euh, lan nga ñu mën a wax ci taxawu Sénégal ci biir Sénégal boo jëlee yeneen région yi. taxawu Sénégal ndakaaru la tàmbalee ci lu ñuy wax taxawu Dakar yaa ngi koy leeral sànq ci say njëlbéenu kàddu ñu ngi koy tabax bu baax a baax ci biir réew mi. boo xoolee président Khalifa Sall 2017 balaa ñu koy euh, lax jant bi demoon na Waalo maanaam Saint-Louis ak gox yi ko wër demoon nay Tambacounda mais boo saytoo gox yu mu dem askan wi ñoo doon génneel seen bopp di ko tertu di ko taxaw te comme ni ma la ko waxee sànq rek euh, mouvement la boo xam ne dynamique politique la boo xam ne euh, affronté na nguuru Sénégal nërmeel ko maanaam daan ko ci élection tudd nga ko sànq muy élection euh, locale yi di élection yi nga xamante ne mooy HCCT mm-hmm. donc ci loolu it bañ ci jógee comme ni ma la ko waxee sànq ndaw ñu bari ñu ngi dëkk ci région yi ci parce que tey boo jëlee ñeent fukki département ak juróomi foo ci dem rek am na ndaw yi taxawu Sénégal yoo fa nekk commune boo jëlit ñu ngi def seen wareef ci wàllu politique maanaam animation politique ñu ngi euh, dox ci askan wi di laaj seen i jafe-jafe di ko gëstu di ko yéegal ci kaw ci président Khalifa Sall pour mën ko xamal ne que mbir mi fii kat nii ak nii ak nii la demee. te mooy li ci ëpp solo. ndax liggéeyu liggéeyu liggéeyu dal la liggéeyu xel la te ñu ngi koy def ak anam yu rafet. mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi tey si samedi ji ñu invité Seydina Issa Laye Samb mu bokk ci coalition taxawu Sénégal euh, fan yi ñu génn nag euh, gisoon nañ déggoon nañ fi euh, mbiri Ousmane Sonko ak xale bu jigéen boobu nga xamante ni daf ko tuumaal mbirum mbirum siif ak mbirum menace de mort liñ ci waxtaane rek mooy manifestation yi amoon ñu bari jàpp ne bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko fi la manifestation yi commencé am ñu bari ñu ci faatu Euh, ñu leen di jaal seeni i mbokk am ñu si am ay gaañu gaañu yow ban commentaire nga ci def. waaw xam nga réew moom dafa baax yor si njub mais li sooxe lii yëpp dafa jóge ci nga ñi nga xamante ne ñoo amee réew mi parce que tey topp nañu gor topp nañu nit bu am tawat ba mu jural ko loraange te loraange boobu tey mooy jël nit vraiment instrumentaliser ko ba nga xam ne tey jur na fitna ci réew mi parce que wax dëgg yàlla réew mi gis nañ fi ay cas yoo xamante ne ay kilifa la ci réew mi ñu tuumaal leen lu ci wàllum lu wàll bu mel nii mais kenn si dégg dara donc tey li ñu wax sànq rek dañuy waxaat président Macky Sall ak ay ñoñam képp ku jug naa am doole ci réew mi dinañ la jéem a normal te kaawu Ousmane Sonko ci kaa boobu rek lañ koy dugal ndax Karim Wade jaar na fi ñëpp gis Khalifa Sall jaar na fi ñëpp gis donc bii moo doon ñetteel bi te ñetteel bi nag mooy wax dëgg yàlla goutte bi nga xamante ne moo tax Euh, cin li baax. lan nga tax lan nga jàpp moo tax nit ñi wàcc. ñii dañ wàcc parce que dañ sonnoon ci couvre fa bi ñi ñi dañ wàcc parce que injustice dafa am ci réew mi ñi ñi dañ wàcc parce que dañu xiif ñi ñi dañ wàcc parce que amuñu am xëy donc loolu yëpp lañ dajale askan wi sonn nag vraiment lott ci nguur gi fi nekk moo tax ñooñu ñëpp dajaloo. génn wax ne Macky Sall nag lii nga nekk doy na yàq sax. est-ce que appel bi Ousmane Sonko def du euh, ñenn ñuy jàppee ko sax appel à l'insurrection est-ce que jàppoon ne Ousmane Sonko moo wootee euh, fitna. Euh, Ousmane Sonko dafa woote pour nit ñi sàmm démocratie sàmm liberté sàmm seen réew man de loolu laa jàpp ne moom la woote. donc it ba mu ko wootee ndaw ñi génn nañu parce que xam nañ ne kat ne kii fu mu jëm ak ma président Ousmane Sonko président Khalifa Sall waxoon na ko woote ne na it na ñi génn parce que buñ ko taxawul rek di leen ko jébbal yoon. même moom gis nañu mu woote résistance aussi est-ce que résistance ak xam taal du benn tey kilifa diine yi fi nekkoon. Oh, dañu résistance ni ndaw ñi di déggee. dañu résister maanaam maanaam bu ak njubadi amee dangay taxaw ne déet lii du fi am donc loolu askan wi génn nañ wax ne déet lii du fi am parce que boo saytoo ajuma ji mujjee nit ñi génn nañ te taaluñu te yàquñu ñëpp dajaloo nañ place de l'obélisque naxarlu njubadi gi président Macky Sall ak ay ñooñam nekk ci réew mi loolu moom daanaka luñ mënul bañ la te lu am la lu wér la lu wóor la. léegi euh, taxawaay bi ñenn ci askan wi taxaw ndax jàpp nga ne mën naa jubbanti dara ci Macky Sall ndax def na déclaration boo xam ne ñenn ñi sax dañoo gis ne dafa yaru ci déclaration ci déclaration boobu mu def. xam nga kundu bin rey sa maam moom boo gisee lu ñuul da ngay daw wala nga tey président Macky Sall biñ gisee ne génn na. nu mu daan fëgge dënnam jaay doole gis nañ ne wàññeeku na donc ëpp it baax na ci lax bu tàng ndax laa xam tàngoon na lool mu koy xëpp nag ñi nga xamante ne ànduñu ak moom donc lii xew nii tey euh, wax dëgg yàlla metti na am nañu si ñàkk seen bakken mais tax na équilibre amaat ci réew mi askan wi jëlaat kàddoom parce que askan wi dafa dénkaane woon kàddoom te ñi mu dénkoon kàddoom yelloo ñu ñu dénk leen ko parce que dañ leen ko dénk ñu jëlaat ko jébbal ko ka nga xamante ne mooy njiitu réew mi. donc loolu tey wax dëgg yàlla war na tax président Macky Sall xelluwaat la nga xamante ne moom lay woote ne gor la ci ay garmi la bokk. wane ko ci doxalinam ak taxawaayam ci réew mi. jërëjëf euh, Seydina Issa Laye ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw sëñ Abdou Khadir ñu ngi lay sant bu baax ci li ngeen ñu may ñu wax suñu xalaat ci doxalinu réew mi parce que ñun lii lii la ñu gëm askan wi taxaw. ñun way politique ñu dem waxtaan ak ñoom laaj leen seen kàddu yéen it journalistes yi ngeen def seen liggéey ci gëstu xam fay réew mi toll di ko laaj ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi donc lu ñuy rafetu la di vraiment remercier bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal di leen ñaanal yàlla émission bi gën a jëm kanam te amal askan wi njariñ jërëjëf euh, Seydina Issa Laye Samb moom moo nekk moo jiite ndaw ñi bokk ci taxaw Sénégal ci ndakaaru nekk membre ci coalition taxaw euh, Sénégal moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi muy émission buy am ci rajo réew mi FM 97.5 samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.